19h jot na ca Bambali Euh, foofee ca Casa Dinonsa ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen ziar ci ajuma ji Adama Ndiaye moo ne ci machine bi Jibril Ndiir moo ne ci euh, digital bi ci kàddu gi Abdoulaye Bopp mbokk yi ñu fas yéene waxtaanee ci ajuma tey ji jéego yi Sénégal def euh, ci wàllu football nañu doon sargale demb ay kàngamu footballu Afrique foofee ca Maroc Sénégal gàddu na lépp buub na lépp indaale lu ko dalee ci coach bi gën a xarañ ci Afrique di Aliou Cissé footballkat bi gën xereñ ci Afrique di Sadio Mané bokk na ci Pape Makhtar Sarr di ndaw bi eh, gën a xereñ ci wàllu football eh, ba ci équipe national bu Sénégal mooy équipe bi gën a ràññeeku ci at mi ci wàllu football Pape Ousmane Sakho eh, di footballkat bi gën a rafet bi ci at mi naka ngeen jàngate li Sénégal am démb ndax seentu woon ngeen ko ak lan ngeen di xaar ci bile équipe lu mu mun lu mu ko mun a jural ëllëg yi leeraaya ci wàllu football jëm ci wàcc wàccaayu jongante yi ñu waajal moo xam coupe du monde ak coupe d' Afrique 88 la 628 99 99 111 laata ñuy ubbil euh, ligne bi auditeur Walfadjri ñu taataan ay kaddu mbégte yu tukkee ci Aliou Cissé démb la ko yëkkati foofee ca Rabat. Je par cette euh, distinction qui ngir wax dëgg rek daanaka kontaan laa def ginnaaw euh, titre bi nga xamante ni ma koy jox tabu moom ma doon sélectionneur bu a sant borom bi bu baax a baax moom mi nga xamante ni daanaka moomu yàgg dooleel nga xam naa euh, distinction yi ni mel mënta am fii rek amul ay sélection yu mag ak ay fédération yoo xamante ni yu mag nañu ak réew yu bëgg li nga xamante ne moom moo di football lii moom nag bi la distinction di def lu dul wane rek xar kanamu Sénégal ak li nga ni moom moo di liggéey bu Afrique di def monsieur nag gërëm baax a baax joueur yi nga xamante ni buri woon ñoom ma raay du ma ko am ak sama staff bi nga xamante ni ñoom lay àndal di liggéey saa su ne te ñoom saa ne rek ñu gën a yéegal baar bu ci kaw mais tamit jaajëf bu baax a baax fédération sénégalaise bu football rawatina ni bu ma dooree métier bi ñoom tax mu di Guy Maï Sy ak kii di Abdou Karim Séga Diouf di jaajëfal tamit euh, supporteurs yu Sénégal moo xam deuxième gaynde ak Allez Casa. deuxième gaynde Allez Casa. mu euh, doon. Euh, kaddu yu tukkee ci El Tactico Alioune Cissé eh, di coach bi gën a ràññeeku ci Afrique jox nañ ko raaya démb sargalaale fa Sadio Mané ak ñeneen ak ñeneen senegal daanaka mu gàddu lépp naka ngeen ko jàngatee ci seen xalaat yi le raayal fa mu mun a yóbbu équipe nationale ëllëg am na ku yëglu ñu jël ko allo allo Walfadjri allo salaamaaleykum maaleykum salaam. Ah, waaw kilifa gi. Adama Dieng borom kafe gi moo lay nuyu naka kafe gi mbaa tàng na tey. xanaa lool sax. am nañ ci mbégte lool ñu ngi. xaar kaas bu mu la ñu ngi koy xaarandi. di la ziar baax di la ñaanal ñaan sama kàddu gi di kàddu jàmm wax na ci mboolem koy dégg rek ci jàmm. amiin waaw vraiment Sénégal démb yow tey yow woon nañu rek. suñu mhm. cérémonie ni amoon na. ñu gis ni euh, bu doon yaakaar naa. wala ñu ñu ko gën a loolu nag day wax rek politique sportive bi nga xamante ni l'état du Sénégal mu ngi koy mane depuis mhm. a subi waaw ndax tey jii nekk ni athlète yëpp daanaka ñu bëri yéen nañ ko réew mi mhm. tey jii a demaat yeneen compétition euh, am fa ay ndam waaw qualifié waat coupe du monde yàlla dogal ñu ñu ñu def ñu amiin waay amiin te gëm na gëm naa ni euh, suñu ko téye rek euh, Sénégal yëpp jàpp ci kenn koy def ko muy sa mbirum bopp ñu génn ci euh, politique beeg njaaxase beeg yu mel noonu yëpp ñu génn ci mhm. su boobaa Sénégal mën na mën na maanaam bu ma la bu la déggee am nga xel mu dal ci équipe nationale waaw am naa vraiment am naa xel mu dal parce que bu ñu nee xam nga équipe loolu lépp loo gis koy conduire da am solo. Mhm. bu ñu nee Aliou Cissé mooy meilleur entraîneur ci Afrique. waaw ba pare ko ñu am équipe nationale amiin Dieng amiin Adama Dieng ñu lay jaajëfal ca Touba jaajëfal yi tamit euh, équipe euh, nationale bu Sénégal mbokk yi ci noonu ñu fas yéene feggoog yéen ci questions auditeurs ñu waxtaanee mbirum football ak euh, équipe nationale ak Sénégal ak raaya ya mu jël démb ca Maroc allo. champion. Ndiakhanaay Thiadiaye. ñu lay fay kilifa gi. xanaa neefar jot na ca Casablanca ak Rabat. waaw jàpp marok jàpp Bambali. mu ngoog. <laughs> mais toutes mes félicitations. à l'équipe nationale. Ah, kontaan nañu. xam nga xam nga xam nga waxoon naa ko Malick bu Sud FM. booba gaynde ñu ngi ci quart de finale yi. Mhm. booba eggagum ñu ngi ci huit seizième de finale yi. waaw. boo laam-laamee équipe bi nii équipe bi ñu mu naa hmm. ma ne ko on a meilleure équipe. Mhm. meilleur joueur. Mhm. meilleur entraîneur. waaw. moom moo ko am ci Afrique. waaye dafa am lu de euh, dafa am lu ñu waxul. Hmm. meilleur président de la république en Afrique encadrement bi mu encadré équipe ba mu egsi fii tey kon équipe bi yemul foofu rek de. Hmm. parce première jéego bu rek la. jéego bu njëkk bi la. bu nga jëm coupe du monde maa la ko wax fii man boobu moom nga ne njaaxaan naay caajaay waxoon. ndax ndax am nga ci yaakaar coupe du monde. dama ne man maa la wax kay man njaaxaan naay caajaay bindal. Hmm. man kay man li may fekk mooy demi-finale moo may moo ma moo may téye. kenn hmm. du tere ma jàll. Hmm? waaw hmm? demi-finale moo may téye coupe du monde. mais du tere ma jàll. amiin waay amiin bindal maa la ko wax tey bis ñu ngi tey. di encore euh, di féliciter bu baax équipe bi yëpp nag. Aliou Cissé meilleur meilleur meilleur entraîneur en Afrique. du équipe bi meilleure équipe. en Afrique maa ngi leen di féliciter. ah Ablaye. di félicité nag suñu président de la mi leen encadré mais président en Afrique di félicité bu baax nag euh, waa Matam ak waa Podor. jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal ñu dikkaat ak euh, keneen ñu waxtaanee mbirum football tey ak euh, jéego yi Sénégal am ci wàllu football ba gàddu ay raaya yu bëree bëri ci Afrique ni ki bu lañ leen doon jëmmal sargal leen ca Rabat ca ñu jëlaat keneen alo allo salaamaaleykum. salaam. waaw dama naan dugg ci émission bi man la Cheikh Gueye maa ngi wootee Kaolack. atia Cheikh ñu ngi lay teewlu. waaw di félicité équipe nationale vraiment wane ngeen seen li boo xoolee au Sénégal sport dafa dellu ginnaaw. Mhm. peut être football bi moo ñu waaw ñooy jël coupe d'Afrique bi mais sur le plan international club football hmm. di basket di handball di athlétisme yëpp a dee hmm. boo koy wax nag peut être boo ko amee loo ko wax duñu comprendre ko duñ xam lan mooy sport xool par exemple athlétisme benn athlète lañ yóbbu woon championnat du monde et puis sur invitation la demee waaw waaw dafa sax mouvement hmm. waaw donc moo la ni kon affaire dafa dee club football championnat d'Afrique coupe CAF ku ci dem premier toog mais il faut bàyyi xel yeneen yeneen yeneen discipline quoi. maanaam maanaam am nañu sasu ci yeneen xeetu tàggat yaram. waaw waaw waaw am nañu sasu rëy quoi parce que bokkul ah. équipe nationale rek mooy dox actuellement mais sur le plan international football basket handball athlétisme yëpp na ko de bëgg na maa ngi a jàppale mais mooy mu jox la espace ak suuf boo compétir. mais nag bu doon daw foo nga may entraîneur bu baax am ay ay leg yu baax ñu formé leen defar leen. ana benn championnat jeu de la francophonie bu amoon euh, a hmm. Ibou Faye am na benn athlète boo xam ne la woon Ibou Faye fii la jógee Sénégal dem directement Maroc nekk champion francophonie. Hmm. waaw waaw kooku moom ça c'est clair avec dafa dee complètement hmm. pour Ndaara sax ñu doon jël mooy Sénégal mhm. tey bu ñu dellu soitee ci équipe nationale ndax am nga yaakaar eh, ci jéego yi koy xaar ëllëg ci wàllu football. waaw moom kay moom kay daal dafay si yëpp am. Hmm. ñu ñu dem. amiin ci kattanu yàlla. amiin waay ñun waa Kaolack ñu leen di jaajëfal ci baatu askan wi 101 eh, point 4 ca Kaolack 88 eh, FM ca Walf FM Thiès 99 point fii ci Ndakaaru allo. salaam salaam sëñ Ablaye maa ngi lay nuyu. maaleykum salaam kilifa gi. Seydou Jamil bu Touba maa ngi lay ziar Seydou Jamil ñu ngi lay ziar ci ji. maa ngi lay màggal bu baax alhamdulilah. jërëjëf di Jamil. Euh, tey nag mooy duggee ci aaya boobu di yàlla di wax ne inna allaha la yuhibbul musrifin man nag li ma bëgg wax nag Ablaye. Hmm. nga man damaa aadawoo fu sama intérêt nekkut mënu ma faa amee dara li ci ëpp ma fa teew maanaam damay dox ci loo xam ne dama cay jëriñu. Hmm. li tax ma dugg tey ci thème mooy milliards yi nga xam ne nag dañ koy jël nag si Ablaye nag di ko pasar pasare victoire neex na lool lool lool nag mhm. mais nag ana victoire bu victoire yooyu léegi nag xaalis boobu nag lañ lay mën a jëriñ réew mi mhm. parce que coupe d'Afrique bi suma diimut juróom milliards ak lu teg teg def nañ ko ci mhm. léegi ñu lu ne boo seetloo lépp lépp lépp benn groupe rek xëy na ñoo ciy jëriñ ak réew mi ñu mu ndoolee ñuy jël suñu xaalis bu bari di ko def ci ay football ak yëpp donte maanaam victoire neex na lool macha allah raaya neex na mën naa sigg réew mi loolu lépp bu jaalee nag ñun li ñu soxla mooy. Mhm. football bii buñ ciy financé ci ab xaalis ñu ciy bénéfice. maanaam ma maanaam maanaam bëgg nga bëgg nga daal euh, koom gi bawoo ci football bi euh, delluwaat ci réew mi. delluwaat ci réew mi parce que nag wax dëgg yàlla ñun dañuy génn di di joxe rek pour am victoire mais dara ñëwagut. Mhm. léegi nag benn groupe rek la mel ni seen lay moo liggéey ñoom ñooy jël milliards yooyu di ko ndóor géej di ko lekk. Mhm. buñ ko defee duñ am lu lu ñetti milliards dañuy perte. léegi nag bu ñu defoon seen juróomi milliards pour mën a am ay raaya suñu gars yi jàmbaar lañ macha allah dañoo war a am nag onze milliards wala nangami nangam ñu mën cee defal suñu kàll yi di mab ak yeneen ak yeneen kër yi yi amagul courant noonu ak ndox ak yi ci aju naatal réew bi mhm. commerce bi dox lépp dox loolu kay lañ soxla mais wax dëgg yàlla waaye yi neex na loolu ñu leen di sargal ni ñu neex mhm. mais man daal li ma mën ta def mooy mhm. ñun ñu liggéey ab équipe di leen jàppale pour ñu ñuy andiwaat ab koom ci réew mi hmm. alal jooju di walbatiku daal di yemaat ci seen loxo ñuy dugg ci otool yi neex ñoom ak nguur jege ci ak ñu ciy noos hmm. ñun nag ñu toog wax dëgg yàlla toog rek di xaar man daal li ma bëgg mooy football neex na lool. Hmm. raaya neex na lépp neex na waaye nag nañ ñuy jàpp nag ñuy andil nag xaalis ñuy gis ne lii moo naata réew mi comme li am ci yeneen réew yi. jërëjëf lool. Hmm. ma ngoog euh, Seydi Djamil ñu ngi koy jaajëfal ca Touba Mbacké ñuy waxtaanee équipe nationale ak nañ ko sargalee sigil ko ci Afrique ndax football kat bi gën a xereñ ci Afrique Sadio Mané la Aliou Cissé di coach bi gën a xereñ ci Afrique ci at mi Pape footballkat bi gën a eh, fës ci at mi eh, bokk na ci tamit équipe bi gën a fës ci at mi di Sénégal eh, Pape Ousmane Sakho di sénégalais bi nga xamante ne moo dàqale bi ci at mi 99 point 0 Walfadjri international ànd ak yéen ak équipe nationale suñu gaynde yi la jéego yi ñu def ci Rabat démb ñu sargal leen fa.